still take my kon kii moo ko tey yow yaa tey loo def am tuub nga réccu ko doo ko defaat kii tuubu ko ah? réccu ne sooy tuub dangay tuub jéegalu ne doo ko defaat te réccu nga ko yow nag réccuwuloo ko te ba pare yow balaa ñuy wax si waxi réccu yi yow Cheikh amat Cissé yow am di yaa ko tey yu def danga ko def purposely you get me because yow xam nga te yàlla boobu mu ne kana am kana la punishment am di gën a métti mooy ku ko xam moom am bañ koo jaamu ku ko xam moom di teeteelu dan ku ko xamut carrément kon yow xamoon nga lii yëpp nga ñëw nga ne di saaga yàlla what was going lu la daloon yàlla waa Sénégal moomu ñu ko sax yàlla yàlla ñëpp la moom booy defanteeg waa Sénégal nga defanteeg ñoom ah à ta manière waaye yow boo demee Sénégal ne Sénégalais nga boo ñëwee Gambie. du yëfi Sénégalais au Gambien sax du yëfi Sénégalais au Gambie. Sénégal ak Gambia Sénégal ak Gambia bi yëpp benn la yaa ngi understand yàlla bu nekk Sénégal moo nekk Gambia te yàlla boobu am am waa Maaka di jaamu moo nekk Gambia ak Sénégal ak àdduna bi yëpp te yàlla boobu di yàlla boobu la ñuy jaamu because da am am ñaay am palanteer ba pare yaaxule nga Sénégal ñu ngi lay ut ñooñu am am am seen jamono bi ngay wax dina ñëw si part boobu yëpp waaye dama bugg a break te break it down noo bugg a doxee si may ni Gambian loolu laa bugg a break it down every point naa la si jàppa karab yow damay play ber ber lu may wax tontu njëkka du ma tontu duy ñëw fii am um, uh, ahead li may tontu njëkka mooy lan am damay tontu ne yow am lii du mistake si yow yow lii yow xamoon nga yëpp ne yàlla mu ne am soo tooñee soo ko tooñee nga tuub na la jégal si based on doo ko répétaat regret nga ko am tuub nga si waaye yow am xam ngoon nga lii yëpp soo nga ñëw def ko yow sa punishment naa gën a harsh dan ku xamut yaa ngi understand ñu dem ngay wa yala yo yaa we se see amat ngay wax yàlla li mooy wax si alxuraan ay wax yu wax yu ñàkk a nekk dëgg la ay waxi caaxaan la doon caaxaan yo you are looking for hype chasing cloud up to um, our religion Islam not even the religion anymore the creator of both Islam and Christians all mankind and jinns say Ahmad look at your face hola normal, halak xalak dafa bari style ak façon Cheikh Omar ya ya ya wala kana be bugg buga dox de may ni ni yow do Gambian yo do Gambian nga xam lolou te soy Gambian tamit di same Gambian boobu ya yàlla bo saga la moyo dang koy réccu with respect dang koy réccu with am am dangay dangay tu dangay tu ci kaw respect dangay tuub si kaw ne réccu nga ko dangay tuub ni doo ko defaat waaye doo ne dangay tuub ne yàlla nga tooñ loolu la dee use naan yàlla laa tooñ suma ma ah, am am am am baakaar su diggante ak yàlla déedéet lii yàlla la saaga ku ñu binda ñun kookoo gën suñ baay yi ak suñ dey yi kii kooku la saaga di daw se fii Gambia. démb bi mu lu ko neex. yes di saaga ndey di se di saaga ndey am am diine yi njiiti diine bu nekk am si right ak si yoon ak yooni diine si raatal mustaxim muy Gambian au Sénégal njiiti diine muslim yépp la yooyu nga ne da nga réccu lii ngay saaga ndey nit yi ngay saaga ndey diine am am am njiiti lislaam yi you min te da daw yow doo góor yow góor jigéen nga yow yàlla nga yab ngaay daw mbindee faam fii lañ laay gën njëkkati yow fii suñ la tiyee dañ laay rey yes with no fear or favor yow yàlla nga saaga si yàlla boobu mu ne yow sa punishment dañ laay rey dañ la war a rey soo tuubee tuubut waaye soo tuubee ne réccu nga ko doo ko defaat you know what te tuubu illallah wa tuuba alayka illallah nga ko defalee you get ngir yàlla rek tax ak ragal yàlla rek wa tuuba alayka you get me loolu nga ko def mais ma rek loolu nga ko defee waaye yow war ngaa jël every stone that luñ luñ la stone o am am sa xeer bu ñu la jàmm every xeer bu ñu la jàmm danga ko war a resist nga ne dangay defend yow reyuñ sa ndey yow disgrace nga si sa yaay ak sa baay Ahmed Ceesay billahi walaay talaay tey dama lay gën yow duma saaga woon saaga sa ndey sa ndey sa tey réccu na lu tax nga nekk doom si moom yow nga tuub si yàlla ba pare ngay defend sa mistake bu mer bu merloo nit yi ba pare nga ne dangay brainwash nit yi naan yow ñun xamuñ la Gambia xamuñ la xamuloo fi loo xam Sénégal xamuloo ko fi ñu la xam Sénégal xamuloo ko fi ban national am impact nga fi def ban national event nga fi take part ba ñu recognize sa ñun xamuñ la sénégalais ñoo la may boo seen 419 sa 419 sëriñ sëriñ sëriñ yii la waaye fii la em kii dafay fen dafay duul doo Sénégal eh, doo benn Gambien te ni la Sénégal di utee noonu nañ laay utee yow yu wur ripen soo buggee lislaam baalal la ak muslim yi baalal la yow dangay tuub si yàlla réccu kaarem xa doo ko defaat nga lem sa gen tëj sa sa tëj sa ñàkk a jom nga beneen yow ragaluloo yàlla sax nga ne danga ñàkk jom ngay taxaw si TV yi see internet bi di wax di defend ne yow loo def am ragalu loko titu ko de di dóor dina naan bandi baa ngi nii yow bandi nga yow ngaay tooy ngaa ka yow sa banditism si yàlla nga ko yóbbu yow sa banditism si diine nga ko yóbbu yow sa banditism si saaga yàlla alxuraan nga ko yóbbu ndeysaan mu ni mu waxee ne taxaw safat safat alaaxira xalaku tamit am na safat safat aduna ba pare nga ne da ñooy brainwash jaan ne am eh, eh, man duma sénégalais man gambien nga te nga nekk gambien yàlla gambien nag àndut ak kuy saaga yàlla di saaga alxuraan fii lañ lay gën a nooxee suñ la tiyee dañ lay rey rey laa wax rey yow soo baalalut jégalut with manners discipline respect l'islam da su la tiyee daf la war a rey ak mboolem jullit kii baaxul déglu leen ko. yàlla waxut kenn to to be his protector am mu ngi daax ganaar am naka lañ ko dee waxee waxaale soxla daaxa ganaar waxaale soxla yàlla waxut kenn protect diine mi waaye ñun nag ñun yàlla boobu la ñooy jaamu te yàlla boobu daf ñu jox task to protect this deen and this Quran and that the name of that yàlla we are worshipping soo boobu du dox sa mayin ngeen boobu Seex Amat Siise du dox ne yàlla waxut kenn yàlla wax nañu ko keroog ba ñu tasee ak yow si ngay xam ne ndax yàlla wax nañu ko ndax waxuñu ko ñu protect diine gi wala ñu protect moo ne daf koy protect yàlla mu ne su dem li su su am am jullit bi demee ba bàyyi boppam si yéeféer bi ba mu niiwal boppam doole am am am pour defend am am am am am islam ak quran bi moom dina mun a jël in charge al boppam protect diineem bi ak l'islam bu nekk digga bi You cannot brainwash out. Yo, hana Freemason nga. Hana part of Bufferman nga neka. Say Amat Sise. Say Amat Sise yahe bad blood. Yo yahe kubon say Amat. Ki fum deka Gambia. Ki fum deka. Gambia gena len. Every bad man, every gangster, every follower of one pack, every ex-con, every convict. Ki sun ko teje sa mu feka len fa jihad len si Yala la disrespect. muy camouflage regret regrettu daf ko tey déglu leen ko laalante wuta Gambia benn Sénégal suñ la tiyee Sénégal luñ lay def suñ comme faatee ñun ñoo leen ko woy faataleku di nga xam ne yàlla boobu rek la ñooy jaamu ñun yow yu waa wàcce ci àdduna def bàkkaar di we all have our ups and downs man man, when i am down when I made a mistake and take responsibility of what I did dama ci a laaj mistake ak mistake sax ak responsibility bi mooy wax ne daf koy jël danga koy jël with respect So soo we mistake nga xam mistake luñ la waaye waxamal ne yaa tooñ tëjal sa bi Cheikh Amath xamuloo dara jànguloo dara mënuloo dara tus nga mënut. ne. yaa ngi understand yi ngay yaaxu yooyu sax dañ la uus bàññaas bi ngay wax uus na la. moom papaam waa bàññaas la woon. yaa ngi understand yow yaa bon yow yaa xalaku kaan doo Gambian Gambian melut nii. yow yaa walaakaana yow yaa xalaku yow nga ne muy ñëw Gambia fii lañ ne lay gën a defee lu seer seer amat dangay jégalu si yàlla baalu si lislaam ak jullit yi si kaw njëkk ak teraanga ak respect yow danga foog nag am lislaam Gambia Sénégal amu fa benn la you don't know kii moo bon yow sa bonaay daf ma bàkkaar diggante moom ak boromam mu jéggalu yàlla lu ci morom lu ci yooni morom yi jaamam waaw yow déggal ko déggal leen bi jaam bu moom ak boromam mu jéggalu yàlla lu ci morom lu ci yooni morom yi ak bàkkaaram ak bàkkaaram personal bàkkaar ak général bàkkaar du benn personal Bakar, ak général Bakar, du benn Li général Bakar la insult to our holy Quran and insulting to our creator that every word he said in the Quran or some of the words he said in the Quran is irrelevant and are not true they are lies kusaka sabai ku sunday sa sunday saaka sa ndey xamuloo ak yow xamaluloo leen ko sax nga ne yàlla boobu ngay toog ut boos hype rek xanaa yéen xamuleen lii ahlul yow danga def lii in a wrong time danga ko def si ahlul zamaat hmm. gis nga yàlla di mbugal dëkk yépp nga duñ nekk si sax gangi silence after some hypocrite muslims am am some gambians di ngay naa binda he emoji re di reetaan ak kii di ko dooleel si si am di ko doomi haram bu def di ko doomi jahannam bu def man ne I visited the land of Saka and see the children of Yanka Say, Amat you are part of those Say, Amat yaa halaku. dangaa yow amuloo jom am pour bés booy am am am am naka la tudda tasee ak yàlla mm-hmm. ah xalaatu loolu yow am am xanaa doo ruus doo ruus sax doo ruus sax pour yow bés bi ngay jàkkaarloo yàlla xalaatuloo ko ne yow yaa wax ne alxuraan bu seela gi lu fa yàlla wax yëpp du dëgga yow yaa ne danga jégalu waa yaa ngi saaga ndey borom am am am am am jiite diine yi nga ne yow da nga regret af ba nga daw si Gambia suñ la ñun ñooy gën a dog sa lu bon dan ñooñu suñ la téyee Gambia and every muslim ku gis kii ree leen ko dagal na ree ko dagal na ree ko dagan na maa ko wax maa ñemeñ wax ko maa ko wax with no fear or favor yow yàlla nga saaga suñ la téyee dañ la war a rey loolu la sariya wax sariya mu ne ñu rey la yow duma la saaga ndey hmm? kii yow yaa bon Cheikh Omar. ah déggoo ko am na fu mu naan bu leen déglu li may wax waaye man doomu xaraam la. jaam bi nga xam ne moom def yàlla la tooñ. because alxuraan kenn moom yàlla mu ne maa wàcce alxuraan maa ko am the protector of the holy Quran man yàlla santul kenn protect ko. yaa mun a duul yaa mun a fen. waa jaam bi mistake ci yàlla mu apologize si ak ak respect. jàmbu mistake si yàlla day apologize yaa ak yi am yàlla si ak mist uh, jàmbu bu am mistake si yàlla day apologize yàlla si njëkk ak taranga jàmbu mistake si yàlla day réccu mistake am si yàlla jaay eh, ban façon mistake ban façon mistake ki def ko neex mu toog wax lu ko neex ne yàlla alxuraanam bi lépp lu ci wax ay ay léeblaat du dëgg ak nangam sàngam dafa fel felaale ba pare taxaw na dafa mystique kii mystigul kii dafay naan sàngara baa muy jël drogué wu moo tax mu nekk di wax li muy wax est-ce que yow sa doon agent yëpp taxaw di ko di ko xool bàyyi di ko ci bàyyi di ko ci jàppale tamit agent seytaane nga yow xanaa xamoo pharmacien yi bu la boo njëkkee dugg dañ lay saagaloo yàlla moo tax mu def ko ba pare naan taxawaat xam ne dara du ko ci fekk bii nag dara dina la si fekka nag yow ci di doomu xaraam doomi xaraam yow ku bon nga maan ku bon nga maan yàlla dafa di yàlla Sénégal wala a dugal différence bi in between Gambia Sénégal loolu nekku fi ñi ya ala la nekk ako ala e feŋo loolu la def ay wole ke gambia anin bori babota je anim bori babota senegal anata gambia saa gambia brain was ya mira ben tolo ñun deñ xoolal noo mel we are more clever than you mënuloo fee féetee loo ta nga ne féetee sénégal ni wululal le nata wuluta jang molon ustaas yooyu de ñëw jangale wala am am am si bi ba am fi ay doom ak yooyu noonu xamuloo fi xamuñ la doo Gambien Gambien du disrespect yàlla nii te Sénégal boobu tamit fi nga nekk tamit te sénégalais nga ñoo la def noo mel ñoo la am jàngal ñoo la ñoo la yow everything foofu la liñ laay utee nga foog ne fii escape nga escape bu loo yow réccu réccuwuloo dara nga ne da nga réccu da nga tuub def vidéo naan bandi bàngoo di sànq may seet ku ma plainte doo ma jot bandi bàngi di teg sa ay waale yow mi danga xam yàlla sax yow mi ngay def seytaane sax mooy def nii force one bi ñu def force one force one bu ñu def mu ne am am dañ war a joxe ay kondom waaw ci ci imaam yi ci ja jumaa yi nee na imaam yi di xutba loolu nee na look at that bon dong lay yow di jox sa baay kondom muy wóor si dëkk bi di ko jox nit yi di leen kutbal di ko jox sa baay sa papa non respectal people yow da nga extreme yow yow sa mistake extreme la te yaa ngi ko doon repeat repeat repeat there will be stop this is ahlul zaman du gis ngeen jamono ni mu dee demee changes jooni jooni kakakakakak àlaxira xew li def léegi gis léegi dangay réccu ngir yàlla ak ngir yàlla pour réccu baalu yow àdduna bi yëpp suñ la bu di lii ndey amut nuñ la munut nuñ la waxut rek xamal ne dañ ko faale danga ko war a zit noppee ko ndik yow borom bi nga tooñ nga ne mu jéegal la mu eh, fu mu la mun a jéegalee yow foofu nga waree tëjee sa taat sar ak sa sar nga ne waat benn tey déedéet dangay sàggante yi diine am kilifa sénégalais yi oo oh, am jullit yu nekk senegal oo ñu la agén si am saaga yàlla ak alxuraan boo def déedéet yow fii la ne Gambia ak fële yow America boo dem sax di American will put a eh, bullet nañ la fetel yow American yi nañ la fetel yow da foog ne da nga yow da foog ne da nga barke yow da foog ne da nga leer war a sign xam yow danga xamadi xamadi du saaga de olof la yow da nga xamadi so fogo ne da nga xam di da nga xamadi Ahmad cisse ya rew Ahmad cisse ya xalaku si style Ahmad cisse yow you are a sample to the wise billahi wala tallahi the true definition of welcoming paganism yow la Ahmad cisse yow do dara billahi wallahi talay Ahmad cisse yow you are not a good Muslim su fekke ne yow sa di moy sa apology bi am repentance Ahmad cisse yow da nga xam da nga xam. mune mune bu ñepp duggon ci ay jàkka diko ñaan yalla du dal man la baña dal ndax Firawna yalla da ko génnoon ba. kenn duggal ko su su deglu deglu amut leneen lu ci benen jaam wara wax. to be honest. waaw foofu nga dofee nag soo waxoon papi kii wala yaayi kii wala am lislaam sañu ñu understand waaye ku sàkk papi kii ak yaayi kii ak yow sa ndey ak sa baay ak lislaam diine bi ngay jaamu sax kooku nga wax ak waxam bu seela nga ne fen la soo kooku mbindeefaam yi yëpp ñu ngi sa kaw yow moom yàlla ñëw am yërmande balaa mu ñu la ñu ñu nga jiitu si moom ñu finis la mu ne nga tuub waaye tuub bi dafa am condition mooy la yow sa wax nga ko nga ne réccu ko tuub ne doo ko defaat réccu nga ko nga baal ngir yàlla a tuubi ilayk waaye ba pare nga ne danga tuub noonu nga ngay defend sa wrong ak ngay defend ngay faramfàcce am am am ñoo joteel ngay faramfàcce am am looy koy defend ak koo du defend si sa wrong boo def when it is a general damage it's not I'm, I'm specific damage. You get me? It's general. It's not personal. You get me? It's national, continental, worldly offend, offend nga def worldwide. Aduna creation nga offend yo. do haram bi nga don yo. Yo, Ahmed Cissé. Ahmed Cissé ya bon. Ahmed Cissé yan na ma yàlla musal sa am am sa ngelaw yow doomi jaxanama nga yow su la yàlla jégalut su la baalut ñun de we can defend but only yàlla xam waaye dafa depend wax nañu ko ñun soo tuubee ngir yàlla moom yow yaa bon kii moo xamadi yow yaa réew yaay suñ la tiyee Gambia every muslim let us be honest buñ demee feeling kenn ci ñun moom alxuraan ku ko moom rek ne man maa ko moom kenn ci ñun understand ko in full ku ko understand ikkati sa loxo ne man understand naa ko in full kenn you more? moo xam yàlla in full we don't know God

yow doo xalaat sa baakaar ngay compé sa baakaar def naf na baakaar you know yow nit ña yow danga xalaku Cheikh Amad Cissé am tuubal tuubu illallah tuubal ngir yàlla nga génn nga jéggalu ñoo saaga ndey jamra suñ la tiyee dañ la war a tiyee lu tax nga daw lu tax mu daw. Ah, moom ñemewul di. da am am dañ la fee bàyyi duñ la fi bàyyi te maa ngi wax government bi am lu am am please jàppaleen kii ngeen jokkoo Sénégal su fekkee ne Sénégal la ko soxla wala Sénégal la ko defee wala ngeen jàppa kii ngeen ngeen tëj ko wala mu baalu yàlla mu baalu with hundred percent baalu ak regret mu jégalu si. umma islaam bi yàlla la saaga mu ne wax yàlla yëpp duñ digga si alxuraan am na yu am am am yàlla day caaxaanaate di teretinaate kii amul wax bu bon bu mu waxul si yàlla ak alxuraan every good muslim kii ku ko profitoo profitoo ko ku ko jot def ko ko def ko ko kii su regretut lim def su tuubut si lim def ku ko jeeku def ko ko maa ko wax ku ko jeeku def ko ko Cheikh Ahmad Cissé nañ la ko def yow yàlla nan na ma def loo yow yow leen na li tombee woon time yi am am am am naka la tudda xeex daga boppa ak yooyu noonu ma dajee si yow billaahi walaay talaay jaasi Aliou Badara laay jiree rek waaye Ahmad Cissé dog sa bokka bi ay juróom-ñaari bunti safara yi toog sa boppa bi juróom-ñaari yoon sa every slice of boppa maa koy dugal si benn safara yow soo jégalul si yàlla comme yàlla lu mu ko Yo, yow danga saaga yàlla yaa ngi understand fi may waxee nii pente you have chance to say sorry God to say sorry to this Islam Yo, you are per pity yow comme siixlu nga comme nit ku muuroo pop nga right now ku xam life ak purpose of life dégg ak purpose of the eh, ak value of creator and creation yow yu yow yow yu disrespected gisuloo ahlul zamaat ak ahlul kasaara disaster xalak bu nekk di ron si dëkk yi earthquake yi ak flood yeeg yooyu sa maas yaa ko indi yow doomi seytaane yu bari si dëkk bi wala si yuy wàcca si kaw suuf ñoo nekk yow yéen yéen ñu bon ngeen yéen a gën a woos yéen nañ nekk alxuraan ñu menson ñu ma xam te bañ maa jaamu ñooy gën a métti la ñu ma xamut yéen la yéen la alxuraan di menson yéen Cheikh Omar ma eh, eh, eh, Xalaku Cissé du la wax Mouhamad Cissé sa Cheikh Xalaku Cissé Cheikh Walakaana Cissé Cheikh am am am am am am chief supreme leader of doomi Dajjal second seytaane ak am am am doomi Firaawon yow on moom mu ne moom yalla la yow nga ne yàlla li moy wax yépp du diga alquran du dëgga yow Firaawon ben step la la rawee doro ta yalla may chance nga tu ndik bok nga si umma rasul bi tubal tubal tubal ngir yalla tubal nga reccu ko sincerely tubal bul faale waaye yow danga tuub ak pride yàlla doo moo la binda doo mun a yow doo mun a am pride bég am yow danga xalaku maan yow yow laahi cheikh am xutumata jahanama siise yow tuubal jahanama cheikh tuubal yàlla mu la may chance nga nekk